Ahmed LG la ak Thiatou Souleymane Diaw ndeysaan LG moo nekke à gauche Thiatou Souleymane moo nekkee à droite kon Thiat Thiat la man mii Thiat laa LG ak caatu Souleymane Diaw ñoom ñaar ñu ngay leewaatoo LG LG portable la wala frigo LG LG ngi ñu ngi leewaatoo LG eh, mu daanu wala arrièreal arrièreal ba jël waaw waaw laa ilaaha illallah LG dóor na caatu Souleymane Diaw moo ne wan ginnaaw LG moo ngem moo ngem bi weex bi caatu Souleymane Diaw daa mel ni ko bëgg a fàq wala LG moo ko bëgg a fàq jàppante da koy kal ñoom ñaar ngi xeex LG ngi dóor LG mii LG daa mel dañ ni ko ki ngay bëral da nga koy dóor moo tax mu ngay dóor rek LG caatu Souleymane Diaw ay waay LG caat la nga koy man caat laa di LG caatu Souleymane Diaw LG mbër mu weex la LG caatu Souleymane Diaw ñoom ñaar jàppante nañu LG Thiatou Souleymane Diop bëgg na ko kal oh boo boo boo appelé kal da mbot bëgg na ko mbot laa ilaaha illallaah Thiatou Souleymane Diop oh, trois bi Thiatou Souleymane Diop mi ngay doon ci faar yi na da lay dëj nga toog laa ilaaha illallaah eh Thiatou Souleymane Diop ndeysaan mais jawee ni am na nu ndam jawee am na nu ndaw am nañu ndam ndeysaan sama xel moo dem ci taala taala jaw la sant ndeysaan taala la nga ma digoon joxagoo ma ko e, dem ndeysaan e, e, ma lambaay yaa ngi lambaay biran nu baa ngi ci maa jooja degen ma ca lu rëy la maa jara bak ñoo jara falal ñoo jor sax yu tàkk ñoo jara way te ñoo dim waagu ñaay gisal